bismillah suñu assemblée nationale bi eh, du dara assemblée nationale bi laa ne du dara termine ne en tout cas assemblée nationale bi day waaw la muy wër daal mooy wàllum crédibilité eh, eh, waaw waaw parce que nag député boog simple citoyen yi nga xam ne day dañoo lànk daal di tëdd ca suuf laa lay wax ni bu ñu leen convoqué nag te commission d'enquête parlementaire duñ dem wuy ji day ah boo sàggane nag léegi day day ay daan nag dana yegg si seenu ndoddu mardi itali waaw waaw dama nga lànk daal di tëdd ca suuf laa nii ne doo wuy ji nag sa convocation ci assemblée nationale daañu yëkkati ay daan lal ko sab ndoddu la la tribune yéene kaay ne xam nga ne loi boobee day jarul sax samp ay laaj Ousmane Sonko ko moom aha moom mi nga xam ne nag maanaam dañu koo convoqué nag ci kanamu commission d'enquête parlementaire ci coowal 94 milliards yi lée lank bi nga xam ne ne doomu aadama yi ñi ngi koy lank ne ci convocation boo xam ne ko nañ leen koy waaw ku ko defati day bu loi ba jàllee waaw danañ leen tëj ñaari atu yàlla kon ci kaso bi lée laay eh ah leen te ñoom tam mënatuñoo yey kenn convaincre nit mukk ndax seen jiko nekk fi kon di wàllum parparloo le quotidien yéene kaa ne en tout cas yeesalaatu bi doo assemblée nationale googee waaw am na ay bang yoo xam ne day fauteuil ña ngay yànq de ay meeru ñu mee ah nees mu daal di ñàkk kon présidence groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar maar day daal dama ne la opposition day Cheikh Mbacké bu PDS waaw gaa kaas de ba nuppi nag du tudd ay turu seen manga ca suuf wax sobli ne en tout cas coowal 94 milliards yooyee waaw Ousmane Sonko ak Mamour day xeex ba ca tribunal ba commencé na maa la wax loolu de dama ne la na Walf la ci talaata ji waaw lay daal di déposé nag kon plainte la muy toppee Ousmane Sonko mi lée mooy ne Ousmane Sonko da koo sosal wàllum diffamation waaw les écoles yéen kay ne en tout bi nga xam ne doon na wax ne kon doyen des juges da koo waaw Ousmane Sonko day waxul nit ña la am de waxul nit ña la am de aha ndekete moom moomee di Sonko moo sàkku ci doyen des juges Samba Sa mu daal di koy déglu laa la wax laas ne en tout daal daal di déposé kon plainte ci waaye moom Mamour tamit day dana jot nag appelé woo xam ni kon dana ci ay sénégalais mouvement frappe Birame Souleye Diop ci l'observateur waaw nee na duñu nangu benn yoon laa la wax ñuy laal benn catu karawu Ousmane Sonko laa la wax kenn du ko fi laal sur saane en tout cas Thierno day waaw commission d'enquête parlementaire bi lé yayu ko de convaincre ko de déedéet yéen kaa gi ne Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké waaw jàppale na Mamour Diallo ci lu baax waaw waaw parce que porte-parole murid ne jàkk xool la xam ne ci njaboot gu baax nga bokk laa la wax sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké yemu ca ndaxte xamal na Mamour Diallo ne ko yaa xalifa bi loolu du tey lu yàgg la sur sa année sëriñ Bass Abdou Khadre na ginnaaw ba mu kon Idrissa Seck ba noppi day waaw ay dambooj la ca rek ca magal ga laase magal googee waaw lu mooy ñaari fan moo dox suñu diggante ak moom waaw waaye paas yi seer na de yokk nañ paas yee de chauffeur yee yokk nañ paas yee de ñàkkum ba tamit gaa ñaa ngay kaas li waas benn doomu wa inna ilayhi rajiun le maire Bamba Fall waaw nee na yàgg naa di yëglu di xamal kilifa yi ni leen am na ci ay taax yoo xam ne boo leen yéexee tuuti danañu daanu laaste juboo Abdoulaye Wade ak Macky Sall bi day waaw Abdoulaye ca dara ñàkku ca de déedéet ndaxte président Macky Sall day may naa Abdoulaye Wade kon benn Mercedes bu grise bu bees tax eh way Samba te Abdoulaye nag xam naa jot na yeneen i cadeau eh way Samba Walfadjri ne mais dara laj ji daal dinay commencé de échec yi tàmbale na nag Mansourlaay xam nga ñaar ñii bu ñu bëggee gëmloo nit ñi ne lii ñu nii la rek nii rek ate hop jeex na xam ngeen nit ñu dofuñu de ñoom ñaar seen diggante ñagasoon na ba yegg foo xam ni maara di taali laa la wax mbir maa nga tàmbalee te sàcc yi nga xam ne kon doon ko jiin Abdoulaye Wade këram ne ay ak ay auto ak yeneen i bagage la ñu ñoom Wade Wade Abdoulaye Wade yi dem ba tuumaal Macky ñi ko jur ne dañ leen di tooñ maara di taali la fii yëpp yegg nañ fi laa la wax Ouattara ak Sassou ne parti démocratique sénégalais laay rey ba dee jël procureur spécial indi jël njabootu Abdoulaye Wade gi bind liste ne bu kenn génne ci réew mi laa la wax am ñoo xam ne seeni jafe-jafe tax nañu bàyyi Abdoulaye Wade ku mel ni Samuel Sarr Modou Diagne Fada Souleymane Ndéné Ndiaye Ousmane Ngom Barba Senghor Pape ak ñeneen ak ñeneen sax mu dugal doom ja ca kaso ba ko yóbbu aéroport gàddaay loo ko bitim réew waadu waati ci ci ay mi la gis nga Sall ak Abdoulaye Wade mi lay waaw ay dof lañ jàppee sénégalais waaye bàyyi leen ñu dem rek yéene kaa ngi te Macky Sall mi nekkul ne suba suba suba ah lay seetal Khalifa Sall mi la wala Karim Wade dee dana ko xool bu baax a baax Abdou Mbow affaire ci lay si ko yéene kaay waaw ne amnistie Karim moom loolee yeggaguñ tax nekkul sax ordre du jour termine yéene kaay ne Alpha Condé day waaw daal di ne daal Guinée nag mar di daal na Guinée réew mi quotidien ne kay Conakry waaw dere jaak safara sa kay tuuru na fa gën a gàtt ñaari doomu aadama ñàkk nañ seenu mandat askan wa ne ko du ca dal <laughs> tey dee suul gaz du ko teree xeeñ moom du fi am laaj bi tey kay mooy ndax ñin Afrique suñu njiitu réew yi bu ñu faloo dañu leen di yàq dañu leen di liggéey am dañuy dof am dañuy feebar lii lan la boo paree mën na la tëjal